ñu bëri ñoo ngi yaakaar que ni série bi léegi mu jeex sama gars yi bi jeexagul des na lu bëri li nga xamante ne war nañ koo xamaat si série bi avant muy euh, terminer ndax euh, on kii nii di Pandiouga moom mi nga xamante ne moo nekk kilifay kër gi sax am na secret bi nga xamante ne mu ngi koy nëbbu depuis lors te waxu ko kenn les moo tax nag série bi euh, des na point yu bëri yu ñu war a éclaircir avant série bi nag di jeex mun nañ ni kii di bi ñu bëri ñoo ngi yaakaar que ni daanu na rek day bàyyi loxo yi wàcc sama gars yi kii di bi du arrêté mu moo tax nag côté boobu noonu rassuré gul pour l'instant nak ki di Fat Bintou ak Khalil amna liñ bëggoon muy léral que ni euh, ñom xalé bu juruñ ko té tamit euh, dégager ki di Bambi sen vie ba tax nak réussir nañ côté mo non mais nak euh, côté yi nga xamante mo gëna am importance côté bi nga xamante nak ki di Khalil warna découvrir kan ma yakal ba médecin bi ne ko carrément sa jabar ji munta am dom sama gaay ki ni di Khalil loolu war a lijjanti pour l'instant man nak ben côté rek moma jaxal muy côté ki di Leila ndax ñëw na fi nga xamante xalaté wu woon côté ñëw na fi fi nga xamante ne euh, bon moment la ñëwee pour daal di sauver ki nga xamante moo nekk Khalil te sama gaa yi acte bu garaaw la def foofu noonu mun nañ ni euh, kii di Bami moom moo ko naawtaloon depuis le début ba tax na nag daal di nay feeñ moo tax def lu baax rek moo baax kii di Bambi euh, bëgg góor rek tax na mu daal di def li nga xamante ne dina ko coûter vie am bi yëpp sama gars yi moo tax nag kii di Bambi pour l'instant yi sax diñ ko war a ndax mun na xaru te sama gaa yi boobaa waa famille nañ am gàcce carrément na li ñu war a def muy delloo ko daal dem toogi foofu noonu ndax mun nañu foofu mooy endroit am foofu mooy kaasam bi nga xamante ne dina fa mën a yem léega wala nag ñu may ko ki nga xamante moo nekk ibnu te balaa ñu ko may ibnu nañ assuré bu baax que ni galaaj bi nga xamante ne moom la ibnu naanoon din nañ ko si moom boobaa ibnu moom moo koy gën a détesté comme jamais léega moo tax nag kii di baam bi wàllum mystique euh, la daal di jiital nag si affaire am yëpp moo tax nag wàllum mystique yooyu a moo tax nag affaire daal nay siiw daal nay leer te yaakaar naa bi mënatul sax nekk nanga nanganu ba naan day ñëw dakaar di fa dëkk léegi moo tax nag euh, bu leen tenk yetew seetaan leen bi fu muy terminer fu garaaw lay terminer léegi jaa jëf.